secteur de la santé hémodialysés yi Sénégal nombre bi dafay grimper de manière exponentielle et ça fait froid au dos plus de 900 000 Sénégalais dañuy souffrir ci insuffisance rénale yow yaa ngi am pendant ce temps 25 nga doon taxaw def les assises de la de, la santé li nga xam ñoom ñooy souffrir ci jabet on en a plus de 500 000 nga dem région de Saint-Louis plus de 10 pour cent de la population jabet euh, diabète daf leen affecté. nga dugg ci région de Dakar plus de 4 pour cent mais chiffres yooyu yëpp mu nekk ay indicateurs yoo xam ni dañ ci war a liggéey def ci ay prévisions mu nekk lu am solo mais toujours nous sommes dans la politique politicienne ñii fi nekk nii li ñuy préparer mooy la prochaine élection mais préparer wuñ la génération future naka lu ñuy def ba cette génération là Woodside li muy exploiter suñu pétrole mu mën a profite à cette génération dama jàpp ni question yooyu moom moo importance par rapport ak question politique yi nga xam moom la ñuy tegal au jour le jour ci table bi. foo teg renégociation contrat pétrolier ak gazier yi. mais renégociation boobu. xëy pour mu jëriñ Sénégalais yi la. renégociation boobu dama jàpp ni waruñu ci dem ak vent populiste dama jàpp ni Sénégal ci li nga xam moom mooy convention internationale yi nga xam moom la signé traité yi nga xam moom la ratifié bu ñu salfaañi réew mi wala ñu saraxee ko gis nga loolu moom moo ñu indil problème ak l'affaire des deux Cheikh Cheikh Dieng bëgg def populisme tax na. nga rompre un contrat boo xam ne dafa lier deux pays à travers benn structure bu tudd Aqua Power nga xam ni moom moo yoroon euh, wàllu désalinisation de de de la mer mais tey boo xoolee rupture volontaire de contrat boobu am ci am na une incidence diplomatique entre Sénégal ak Arabie Saoudite ba tax na nga envoyé benn nit envoyé spécial président de la République ñu éconduire ko fële ci Arabie Saoudite lan moo ko waral parce que da nga bëgg a def du populisme parce que da nga bëgg a koo xam ni c'était un candidat de substitution ma jàpp ni Sénégal am na yeneen urgence dañu diggoon jub jubal jubanti li ñu war a def moom mooy lan fexe ba leeral cette question boo xam ni ça taraude les esprits muy c'est une c'est un scandale boo xam ni dafa jóg rek daal di xëcc xëy ni cëpp ni lay ci bopp Sénégalais yi muy affaire ONAS boobu entre de deux chefs ma jàpp ni Sénégalais yi seen urgence moom mooy nañ ko leeral ñu xam kan moo tooñ ak kan moo am dëgg. Mmh ci wàllu yaxanal alal réew mi euh, Diomaye bëgg dindi. Euh, conseil économique ak HCCT euh, euh, nga ni ni la ko Georges waxee sax na diggé woon la waaye tam Sonko diggé woon na caisse noire leen dafay jóge ci réew mi xëy na loolu dina ko def. waaye Diomaye da na leen dañ koy soppali def ko fonds secret xëy na dañ ko dindi nañ xaar rek. wala am déet xam nga man man dama man dama gëmul waxu Ousmane Sonko dama gëmul waxi Diomaye parce que ay nit lañ yoo xam yu cuune lañ c'est des gens yi nga xam ni amuñu respect ci askan bi. c'est des gens yi nga xam ni. li ñuy digg gëmuñu ko ñi ñu gëm mooy la fin justifie les moyens gis nga ñoom fa ñu nekkoon lan moo tax ñu am cette richesse lan moo tax ñu profiter ci yenn pouvoir yi ba mën a aspirer à diriger ce pays c'est parce que ci ay fonds commun lañ leen nàmpatal dem ronke ay juuti ci ay nit ronke ay juuti ci ay entreprise di leen xoqatal di leen def dos au mur mais bu ñu paree euh, conflit d'intérêt boobu waral na sax yu mën di am kees yoo xam ne dañ koy séddoo ci seen biir loolu moom moo tax nga am un président de la république demi milliardaire un président de la république daf lay wax ni am naa 4,3 hectares ci tel endroit un président de la république boo xam da dalay wax am naa 3 hectares fële am naa 20 millions fii et cetera te yooyu yëpp booy xool ba ci biir dafay violer la loi ma jàpp ni ñii nekkul ñoo xam ni war nañ leen sax dénk réew ba di leen dénk ay institutions tey boo xoolee même ci déclaration de politique générale bu Diomaye daf lay renseigner sur la personne de Diomaye. déclaration patrimoine effectivement parce que xam nga la loi sur le domaine national xam nga lan la wax affectation ak désaffectation des des terres du domaine national waruñu jox suuf ku dëkkul ci commune bi mais Diomaye affecté nañ ko ay terres beneen bi aussi sur ci loi 64 40 46 bi boo demee ci décret 72 daf lay wax ni la. képp ko xam ne dëkkul ci commune bi waruñu ko jox suuf suufu terre euh, domaine national bi mais également waruñu ko jaay euh, déclaration de patrimoine bu Diomaye Faye lañ ciy gis ni quinze millions 50 mille figuré ci figuré na ci muy une transaction financière boo xam dafay figurer ci li nga xam mooy déclaration de patrimoine bi mu nekk une erreur monumentale boo xam président de la république bi nga xam moo war a sàmm institution yi moo war a veiller ci euh, le respect strict pour mën a fonction faire fonctionner ce pays kooku moom mooy jëkk a jalgati yoon ma jàpp ni c'est un boo xam ni amatul loo xam mën na ko jaay sénégalais yi. ma jëmbal nee na euh, Sonko ëppal moo ëppalee Diomaye alal euh, Sonko def na déclaration de patrimoine waaye siiwagul noo gisee ñàkk a siiwal googu mu ñàkk a siiwal alalam. xam nga boo gisee président Bougane daf koy faral di wax mu ne waratuñ yem ci déclaration de patrimoine xam nga fan lañ waroon nekk da war a def déclaration de patrimoine d'activité et d'intérêt. sa activité bi ngay exercer da nga ko war a déclarer mais également revenu yi ciy génne da nga ko war a da war a déclarer mais tey ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Diomaye lii ñu am ci alal nan lañ ko mën a justifier. ah moom bokk na ci ordre des experts ah, moom Sonko. mais même bu bokkee ci ordre des experts loolu mënut a ta euh, justifier patrimoine bi nga xam ne moom lay moom lay wan Sénégalais yi tey un simple agent des impôts et domaines en seulement quinze ans de de de service. mu am euh, kër fële ca ca Mermoz ñaata ñaata euh, mètre carré mètre carré bi ñaata lay jar ak li mu yor ci ay voiture son train de vie ak li mu dépensé ci politique mais damay jàpp ni tey sénégalais yi war nañu poser un certain nombre de question gis nga bu ñu bëggee. nañ dépensé politique ak euh, gone yi ñoo doon cotiser nee nañ. waa xam nga loolu <laughs> man dama jàpp ni ndax sénégalais yi ak manipulation la parce que jàpp naa ni li nga xam moom lañ dugal doon dugal ci Copper Express bi. loolu jàpp ma ni c'est la réalité de choses ma li ma gëm mooy c'est des gens yi nga xam ne ils sont immensément riches c'est des gens yi nga xam ne ils se sont enrichis sur le dos du contribuable sénégalais contrairement ak un benn Babacar Fall bi nga xam ne dafay liggéey pour le contribuer pour le pour le les les intérêts exclusifs des sénégalais ou bien un président Bougane boo xam ne dafay liggéey pour le peuple sénégalais tey boo demee le président Bougane ma jox la un exemple nga dem le Dantec wala nga dem principal wala nga dem Abass Ndao demal ngeen demander service comptable yi ñaata lafa dugal ci social c'est minimum 500 millions ñaata nit école la tabax ñaata structure sanitaire la tabax ñaata employé la créé ci réew mi loolu lañ soxla ci réew mi mais soxla woon nit yoo xam ni li nga def ci ci sa bilan mooy un bilan passif mooy taal mooy toj mooy cooki mooy ay nit yu dee. yéen foofu ngeen teg seen tànk fi ñu toll ndax gis nañ ni Bougane mi ngi wane boppam ci opposition bi noonu ngeen di defa wala. waa xam nga ñun cooki ci sens figuré lañ koy lañ koy def mooy cooki boo xam ne dafay dem ci intérêt sénégalais yi mais cooki boo xam ne dafay tax suñu jeunesse bi ñuy perdre plus de quatre-vingts pertes en vies humaines soxlawuñ ko cooki boo xam ne dafay tax ñu am attentat ci bisu yaraax soxlawuñ ko. cooki boo xam ni dafay tax ñu taal suñu bu bisu BRT yi wala ñu taal suñu dem dikk bi wala ñu taal li nga xam mooy suñu terre bi soxla ko cooki boo xam ni daf ñuy coûter ay milliards soxla wuñ ko il faut être très pour penser ainsi mais le président Bougane cooki bi muy wax moom mooy fexe ba cooki ci kan mu ëppal njëriñ Sénégalais yi ci cooki la ñuy woo Ousmane Sonko. pourquoi jamono yooyu yëpp waxu leen ko woon. non yàgg nañ ko a àndoon yàgg nañ ko wax est-ce que mës nga gis un seul membre de gëm sa bopp muy toj. ñun tabax la ñu gëm ñaawlu jamono jooja. yàgg nañu ñaawlu nii lii nga xam ne mooy édifice public kenn waru ko yàq gis nga Ousmane Sonko tey bu ma gisee son image ñi tekk à l'université Cheikh Anta Diop man damay gis ni loolu contraste la c'est paradoxal nit bu nga xam ni say ñoñ wala ñoo xam il se réclame de Pastef ñoom ñoo dem taal édifice universitaire mooy nit ñi gëmuñu xam-xam boo xoolee ci seen nomination yi dañ lay wan ni ñi gëmuñu xam-xam gëmuñu ay universitaire boo xoolee ci ni ñuy doxalee dañ lay wan ñun gëmuñu xam ñoom jàng nañ te am nañ ay master 1 ak ay master 2. mais mais boo jëlee un Ousmane Sonko parfois bu la nee jàll na ENA da nga naan ENA est-ce que waruñu ko tojaat ñu réformer ko parce que produire tout résultat yi ñu soxla produire produire ñi nga xam ni mooy euh, fonctionnaire yi nga xam moom la ñu soxla boo jëlee un Diomaye par exemple quand il fait un discours tu te demandes est-ce que c'est un président de la République boo xam ni dafa ngi ko former ENA. yooyu yëpp c' est un ensemble de questions boo xam ne tax na ñun ci suñu programme. waaye nag bu ñu réew mi bi mu dee réew ba léegi waa ENA yàgg nañoo yor Sénégal 1960 ba léegi te réew mi demul fenn itam est ce que mbiru diplôme comme njàng moom doxal na réew itam. waa xam nga tey boo xoolee waa Carla it par exemple ñoom ñi nga xam ñooy nee nañ ñoo génne ENA tey nga xam nee nag ay impotier ay daggkati juuti bi ñu ñëwee réew mi dafa gën a nërmeelu. mais da nga bëgg rek du yor ci ay inspecteur des impôts. non réduire ma ko ci inspecteur des impôts mais pàcc ba ñu ci génnee ñoom bañ ci jëlee formation laay wax boo xoolee suñu secteur aviation par exemple xam ñoom ñu ngi def populisme ni transporté nañ vingt cinq mille personnes sur six millions de pèlerins yoo xam ne ñu ngi def converger vers Touba mais ci beneen côté bi am na loo xam waxuñu ko suspension temporaire vol yi nga xam ne ñoo war a dem États-Unis lan moo ko waral c'est parce que compagnie bi dafa ameel xaalis ñi nga xam ñoo leen doon luy. ak mais loolu du Diomaye ak Sonko. mais si nguuru Diomaye la amee. oui oui mais d'accord mais passif euh, Air Sénégal ñëpp xam na daa am problème. no no boo ñëwee da ngay redresser mais ba ñu ñëwee lan lañ. def copinage clientélisme ñu réduire les dépenses ñu fexe ba. li nga xam mooy case clientèle politique mu bañ a am foofu. est-ce que yéen a defee xaalis bu ñu koy jëlee ñu mën ko injecté wax waxi manipulation ci ñoom mais yéen itam est manipulation parce que problème Air Sénégal boobee nga xamante ne tu parles de la ligne euh, Dakar New York on évoque même la gestion de Philippe Bonne te Philippe Bonne yàgg na. léegi léegi pour ma wan la ni nekkuñ dans la manipulation boo jëlee vingt cinq mille personnes yoo xam dañ leen convoyé sur six millions de pèlerins c'est une goutte d'eau dans la mer est ñoom ñoo nekk dans la manipulation parce que loolu ça a créé plus de problèmes que de solutions sénégalais yi doon nañ bëkkante ci affaire dem dikk bi et aussi pris yi dem nañ ba mënatuñ ko maîtriser am na ñoo xam ne douze mille lañ doon yebee am na ñoo xam ne quinze mille lañ doon yebee c'était pas mal hein l'initiative c'était pas mal mais dose populisme ba moo di ëpp te tey dama jàpp ni dans un pays normal bu fekkee da nga bëgg a gérer les affaires de la cité il faut nga dem dans la prévision mooy fexe ba diversifier suñu système de transport mais également fexe ba sénégalais yi li nga xam mooy njëgu transport yi ñu am pouvoir d'achat bi. léegi yéen waa Bougane nu ngeen gisee euh, euh, coowal Omar Diagne mi lankal Touba mbiru hôtel ak i wata yu doon euh, jëm ci ay gan yu Serigne Mountakha ci màggal gi moom Omar Diagne ak kàddu yu mu yàgg yëkkati ci tarixa yi nee na sax Serigne si ñoom ñooy dugal blanchiment d'argent ci réew mi diggante tam xarit ak gàmmu. Euh, nee na blanchiment d'argent yi fi am yëpp maanaam xaalisu dorog yeeg yooyu yëpp nee na sëriñ si la du ngeen gisee loolu. waaw xam nga Cheikh Omar Diagne dama ko yàgg déglu dama ko yàgg a suivre mu ne Serigne Touba n'est pas dans mon cœur maanaam Serigne Touba nekkul sama xol waaye itam nekkul koo xam ni moo gën a saint ci saint yi dafa yàgg di ŋàññi ñi nga xam moom mooy kër diine yi beneen bi aussi tuumaal na. maanaam di kër diine yi ci wàllu euh, événement religieux yi nga xam moom mooy am jàpp nañ ñoom ñooy blanchir xaalis bi li fay drogue ñoom ñoo ko fay dugg lépp lu lu bon ñoo ko fay duggal ma jàpp nii ki nga xam moo war a gérer li nga xam mooy euh, les moyens généraux ñi teg ko ci palais de la république war na am beneen dayoo boo xam ni bu dul dafay toog di pourfendre les les les conflits parce que ku ne xam na ni senegal loo gàtt gàtt xam-xam xam ni nous avons un islam confrérique islam la boo xam ni dañ ko adossé ci ay confrères yi am ay école mais ku nga xam dafa contre ay confrères yi ki nga xam dafa contre Serigne Touba ki nga xam dafa contre maam El jàpp ma ni am na raison derte pour ñu teg ko ci palais bi mu wéy a gérer li nga xam mooy les moyens généraux bien que nag sëriñ Bass Abdou Khadre mu baax mi jéem na rafetal parce que loolu la doon loolu la jàng ci sëriñ Mountakha sëriñ Mountakha bi ñu ko empêché pour mu dem julli ji euh, vendredi dafa ñëw ni man maa tardé mais ku ne xam na ni da doon rafetal parce que xam na ni bu waxee woon neneen président ba am problème sëñ bas kazalika am na noo xam bu ko waxee woon nit ñi dinañ am beneen bët bu ñu xoolee sa pouvoir mais dama jàpp ni. ñii ñu teg fii ci bopp réew mi ay cuune lañ te xamuñu sénégalais yi ci ban réalité la ñu nekk bëgg nañ imposer sénégalais yi beneen beneen projet beneen daawa daawa boobu ñu nekk nag ñun dañu jàpp ni dañu war a taxaw temm ni leen lii du fi amee Sénégal dañu nekk un pays de liberté Sénégal dañu nekk un pays boo xam ni tarixa dafa yàgg te dañu ko mooñaale Eh, eh, ci wàllu prise en charge boobu eh, yéen waa Bougane Bougane ci boppam di jéem a méngale sax prise en charge boobu des délégations étrangères ak euh, Mélenchon mi fi ñëwoon ak Macron mi fi waaj a ñëw. mais est-ce que comparaison bi. Euh, mais mais ça vaut la mais à te Mélenchon bu ñëwee fii ban. Mélenchon Pastef fa ko invité woon ah. même bu euh, fekkee Pastef xëy na Pastef fa ko fayal ay lotel ak yooyu tam ah. xam nga loolu leeraluñ ko mais li ñu mën a jàpp moom mooy tey ñoom bu ñu ñëwee def un voyage privé ñëw fii au Sénégal. bu fekkoon Pastef moo ko dalal duñ ko dugal biir université Anta Diop muy def conférence ba di fa tudd loo xam ne ñun c'est aux antipodes de notre culture muy wàllu LGBT ni dañ koy accepté moom moo tax ñu dugal ko ci législation française ba Ousmane Sonko di ko feelu pour lui faire les yeux doux wax ko ni ko ñun ñu ngi koy gérer te ñu koy apte accepté Sénégal bu fekkoon ni dafa ñëw ci cadre Pastef duñ koy ak ak accueillir foofu mais fan lañ ko loge kin fat man ma jàpp ni tey Sénégal war nañ yemale sénégalais yépp boo ñu am benn complexe ci tubaab te Ousmane Sonko ak Diomaye boo leen xoolee ni ñuy doxalee dafa mel ni dañuy ñëw rek jébbalu ci nit ñuy weex ñi. jërëjëf Moussa Niang bu gëm sa bopp bu Bougane Gueye Dany jërëjëf euh, Georges. Vous avez besoin de caution sur des marchés publics ou privés? Adressez-vous à la SONAC. La SONAC SA vous accompagne dans l'obtention et la Babacar maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la gërëm di nuyu sa.